الذي أعطيت كرمه يا حي حادي حلالني قبل مصيب القدر لذاك لم أرد في سر وفي حلم وما التمس بجاهل منتهى أدني والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولكن ayah itu nasi kita kain nanti, ah, kalau dalam Allahumma بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل بك الكريم عودي تائبا اليك لأستغفر الله nama kayo boo ko dee ñaanal ko ne yàlla nga yàgg ko ñaanal léegi yàlla def ngeen di mag barke di ko taxawul ci liggéey bi ci ngar gi nga xam ne mooy ngar جبار سبحان الله أما لله الحمد لله المنان لله سبحان فاتم سليمان داوود سلامات الله على نبينا وعليه مدعوكم بلغ الآخرة لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله njàng mi neex na lool te am na pastéef lu mën a jàllati ñeneen. loolu mooy mboolem xarit yi rek bi déwénee bi maanaam ñu ko faw fa internet gërëm ak ñaas ñaas yéen sëriñ ba nga ko gërëmee ba léegi fu mu dem ku nekk bëgg a jaxasoo moom ku nekk bëgg a doon di moom te bëgg di doon kenn ku du taalibi maam Cheikh Anta taalibi na say moom gërëm nañ la waaye day wax dëgg dëgg muy

Lam yang perlu dihodapan negara Thank you. di fi amal suñuy liggéey ci seen i jox kàddu gi rek ñu dikkal ñu leen yoo xamante ni ci màggal gi di jot kon dañ ko daal di jox kàddu rek kon ñu ko daal di jox micro Amadou Mamoun mu Serigne Modou Rokhaya seen fee amal sunu liggéey kon dañ koy daal di jox kàddu gi rek euh, mu dikkal ñëw ci euh, waajtaayu taxawaayu bi ma nga xamante ni si am na mbooleem mbokki jullit ak mbokki taalibe yi jàkkaarloo ñun di xel màggal ci bis bi nga xam ne mooy bis bu Sëñ Tuubaa ju géej gi wàccoon fii Daaru Salaam di doon yëpp damay wax ni bisub Magal Touba Sëñ Touba moo ne nañ ko ci yàlla waaye bis bi moom ñun ñoo ci war a sant sëñ Tuubaa ndax mooy ak ñibbiseem te ak ñibbiseem ci la lépp amee ñu ñaan na ko manqué daa defee ak maam ñi ba tey jii ñu koy wéyale noonu ñaan ñu yàgg koo da doxale noonu muy bis boo xam ne nag bis la boo xam ne bisu historique la ci yoonu murid bis boo xam ne bisu feet la magal la bisu bisu mbégte la doon bis boo xam ne mbooleem doomi sëñ Tuubaa yi fi nekkee ñëpp daanañ ci teew ba fi jógee ba tey it suñu Muntaxa mii di xam si àll tey jii moom it bis bu ne mu ciy ñëw kon muy bis boo xam ne. bu jubsee tamit ñeenti fan yi ko jiitu dañu wàcce ay kaamil yu bari ci penc mi ñeenti fan yoo xam ne bis bu ne mën naa ne dañu wàcce lu mat dinañ ma yaakaar ne mat junni kaamil muy bis boo bis boo xam ne daal ngërëmu Sëriñ Tuubaa rek lañ ciy sàkk ak di ci diggal Sëriñ Tuubaa di sàkkoo nag képp ku ci teew rek loo ci fas yàlla nag suñu borom defal ci barke Sëriñ Tuubaa yéen waa Rafah TV tamit ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm jërëjëf am solo yooyu ñu koy jaajëfal bu baax kon mbokk yi dañ leen di jox beneen kilifa ba ci kanam incha allah jërë ngeen